ko njukkal ginnaaw boobule jaloore bu rëy bi Serigne Cheikh Diop def ca Rwanda Fatoumata Savané mu doon ndam lu bees ci Sénégal lii nag di raaya bi nga xam ni rek dañ ko amal ci concours international ngir liir alxuraan ki nga xam ni nag mooy Serigne Cheikh Diop daal di koy jël bi mu ñibbisee fii ci Sénégal nag daal nañ ko rek teeral nu ñuy teeroo buur concours bi euh, ñaari étape la woon première étape bi moo nekkoon demi finale yi nga xam dañ doon test pour segg ñoo xam ne ñoom ñooy dem ci finale bi yàlla dogal bi ñu njëkkee def test boobu noonu ma jël première alhamdulilah euh, ci cinquante et un personnes yoo xam ne ñoo jóge woon ci trente pays euh, bi ñu demee finale itam yàlla dogal ma jëlaat première alhamdulilah. waaw ah, bi ñu euh, bi ñu ko yëgee dañ ciy kontaan lool moo tax itam ñu jël initiative organiser cérémonie bi. maanaam teeru ko aussi teral ko ndaxte association ànd liggéey daara li ko tax a jóg mooy ñoo xam ne daara bari na ay jafe-jafe waaye dafa laaj taxaw. mu doon concours boo xam ne nag ci wàllu arxuraan la woon amee foofulee ca Rwanda moom mi nga xam ne nag mooy sénégalais bi ràññeeku fa nu am solo. boo xoolee réew mi ñi fi nekk ci li fi nekk ci ay daara bari na waaye borom bi subhaanahu wa tànn la ci biir ay dongo yu baree bari. defal la tawfiq nga mokkal alquran defal la tawfiq nga mën a génn toog ci mbooloo mu yaatu nga mën a jàng alquran te tiitoo waaye rafoo xam ne yàlla moo nekk ci gin moo nekk ci ginnaaw loolu kon ñu sant yàlla baax a baax di sant mboolem koo xam ne taxaw na jàppale ñu ba loolu am te jii. ay professeur am famille wam ñi nga xam ne itam ñoom la àndal di jàng waaye itam ñi nga xam ni ñooy yaayu daara yi ñoom ñëpp ñëw nañu rek ngir sargal ko. gagné na xëy Maroc demoon na Kenya gagné woon fa troisième defe naa defoon na Sénégal it gagné fa deuxième waaw moom bi moom mooy ñeen ñeenteel bi yoonam moom gagné concours international. année moom euh, xale bu bëgg jàng la daal moom xam naa. ministre de l' éducation nationale nag yónnee na itam ka nga xam ni moo ko fa représenté woon ba tax nag wax na itam li nga xam ni rek moom la état du Sénégal nar a teg ngir nag gën a jàppale ñi nga xam ni ñoo yëngu si daara yi. suñu kilifa di Moustapha Mamba Guirassi. ministre de l'éducation nationale bi nga xam ne yàlla dafa dogal mu jiite lépp luy jàng ak jàngale Sénégal daara yi nekk ci biir yàlla dafa dogal tey jii may wax ak yéen nekkul ci réew mi euh, président soo son excellence monsieur Bachirou Diomaye Khar Faye yaakaar nañu ni effort yi état du Sénégal doon def ngir suqali njàngum alxuraan mi ci Sénégal am nañu yaakaar ni régime bu bees bii ñëw bu yokkul du wàññeeku te am nañ yaakaar bu baax ci dina yokk ci seere yi fi jub lépp mu nekk yitte joo xam te ni ñor na ko ba première sorte bi mu def ca jumaa ja la ko waxee di ndokkeel waa daara la ca topp mooy gis ngeen ni premier conseil des ministres mu jël décret créé de direction des affaires religieuses et d'insertion des diplômés en langue arabe waxal ko boppam